jërë jëf ci déglu bi Vibe radio téeméer ñaar yu tomb ñett dibéer fukki fan ak ñett satumbar 2020 ni ñu koy defee ay bu nekk seen émission hashtag news di ci dalal tey Moustapha Fall ci du juriste de formation nekk ba tey leader bu parti action patriotique et de libération nekk ba tey PCA bu SNHLM kon nak hashtagu tey bilé eh, ni ñu koy defee rek bés bu nekk ligue sénégalaise eh, bi yëngu ci walu rek xeexum cigarette sëñ bi Fall am na ab niseur bu ñoom bëgg nañ ko mu di ci weeru satumbar bilé def campagne bu ñu fas yéene rek yokk ci eh, njëgu cigarette affaire bi paquet bu nekk ñu yokk ci ñeent fukki dërëm ak juróom buñ ko defee la ci ruusee ñu jàppale ci yenn ci ci mel ni ay semis ak it ñoom seen ñu teewlu Amadou Moustapha Guèye bi nga xamante ni moo wax ci micro Ndeye Fatou Ka. ministère de la santé ñu ngi ko jël à hauteur de 15 pour cent je crois quelque chose comme ça te ñu yaakaar ni que loolu dafa nekk loo xam ni état bi war na ko revoir parce que am na ay programme de santé yoo xam ni comme CMU couverture maladie universelle moo tax ñun ñu yaakaar ni que bu ñu jëloon tey jii lu toll na deux francs en plus de la taxation qui existe

Amadou Moustapha Guèye bu Listap moo doon addu ngeen di teewlu kon nag euh, sëñ Moustapha Fall Thié lan moo ci sa commentaire. mais euh, affaire u tabac moom xeex ko baax na. tux cigarette moom amul benn njëriñ. man tux na ay at te damaa teel a tux aussi. donc euh, seen combat boobu d'accord naa si parce que xam naa li cigarette di yàq si nit. ba tax na loolu ñu wax baax na. su fekkee ne xaalis bi itam dañ koy def si yooyu ay CMEK ay. bourse familiale ak yu kenn xamul loolu itam ba tey dafa gën a baax donc combat la boo xam ne daa man je valide d' accord naa si. aywa ñu xuus dugg ci waxtaan wi ay bés bee ñu génn li gën a fës ñëpp xam nañ ko ndaw ndox mu bari mi bu mën na am duñu Dakar duñu wax banlieue dañ naan Sénégal wërngal képp faxe sax njiitu réew mi Macky Sall daal di déclencher li ñu naan plan Orsec situation boobu nag nga ko jàngatee en tant que kilifa ci réew mi. Euh, situation bu metti parce que liñ gis ren mësuñ koo gis. Euh, rien qu'à Sokone, il y a 217 mm. C'est énorme. Mais il faut que nous sachions degré Le degré est à partir de maintenant taw yu mel ni bëgg di gis ndax dérèglement climatique bi. Mm-hmm. dérèglement climatique dina tax ba taw yu mag lañuy gis di gis liw yu di di inondation yu doy yaa ngi wax léegi Sénégal non àdduna bi yëpp la. d'ailleurs si pays mag yi sax fa la gën a méttee ñoo gën a enregistré ay décès malgré leur moyens et tout euh, donc ça du mu ngi mel ni Covid bi ñaari fléau lañ am ren mooy Covid bi ak inondation catastrophique yi nga xam ne c'est dû au réchauffement climatique donc il faut que ñu jël suñuy disposition euh, defar waat xam ne réseau yu ndaw yi amoon mënta supporter inondation yi ta supporter taw yi ñu réseau yu taw les futurs prix côté de l'état hmm. euh, du côté de l'état toujours aussi ñuy seet ni nit ñi bañ di n'importe quoi hmm. nit ñëwaat ci biir waxtaan bi hmm. bañ di n'importe quoi et puis ñu xam ni ñuy de dëkkukaay yi aussi balaa ñuy joxe dëkkukaay ñu ndax la ndax fii ku fi dëkk ndox la fi loolu côté état euh, euh, li nga wax sax dëgg la dama lay fekk si ndaxte bu ñuy fàttaliku euh, kàngam yi nga xamante ni ñoom ñoo teewoon ci forum en ligne ba ñu amaloon àjjuma ñaar fan ñaar avril ci Covid bi nga xamante ni nag prévision saisonnière ak caractéristique agro hydroclimatique bu saison des pluies ak it zone soudanienne bu sahélienne ñoom dañu dànkaafoon wax ni ren jëlee taw bi dina bari comme li nga wax sedd dina bari waaye léegi loolu ba mu amee kilifa yi dégg nañ ko mais la moo tax ñun ñu àgg fi te pourtant aventure nañu avril ba léegi. waaw waaw d'accord les problèmes mu inondation de xam nga président dégagé woon na 700 et quelques milliards si assainissement bi assainissement inondation gi si mhm. lépp ngi si mhm. alors je pense que doo seetloo fii Grand Yoff nam daan taaye taayetu ko ak yeneen zone yu bare nan daan taaye taayetu ko ce qui veut dire que euh, projet boobu am na lu mu réglé gum jeexagul nag pareegut euh, suñ ko continuer ba pare renforcer ko encore un homme averti en vaut deux. Mm. foog naa ne léegi lii ñu gis ni dinañ teel a jóg ba nga xam ne yàlla mën na def taw bi nag sax yem fii doon ñu am si benn rek si ren si ren mais déwé na ngi fi ci veux dire que liggéey bi moom nañ ko continuer bu mu nëgati muy taw ñuy soog a liggéey nanuy taw muy liggéey muy taw ak muy bañ a taw nanuy liggéey du boobaa dañuy wax daas fanaanal ren di day bettee du boobaa dara duñu bett mais voix bi ñu nekk sincèrement suñuy waxante dëgg rek c'est une bonne voix cette vision deug la ne li à woni, déjà dégagé 700 et quelques milliards c'est assainissement. mais 750 milliards nous ñi wax mais dañu gis ni ren euh, ay dafa na suñu ren li dafa ah. ordinaire na suñu mais du ordinaire. extraordinaire. waaw extraordinaire avril oh mais d'accord avril ak légui nak du nonu nak <laughs> c'est plus compliqué que ça. vous savez xam euh, du gouvernement di fonctionner. nan continuer bañ a taxaw te jëlaat yeneen disposition xam ne réseau yi ñu am mënta supporter taw yi nar a am ëllëg ñu def ay réseau yu méngoog taw yu mag yi parce que blocage yi inondation yi lu koy indi kër yi ndox yi dugg ci kër yi c'est que réseau bi su fekkee ne ñu ngi ko calibré calibre boo xam ne barewut ndox mi ñëw ak force day mujj bloqué wu sax dootu dem débor daal di déborder nag si kër yeeg yu def am nga gis nga ay place doo doo demee Dakar démb boo bërka démb dem am na place yoo xam ne daanu am na inondation c'est parce que taw bee am doole taw bi moo ëpp doole suñ réseau yi ok réseau yi ñu teg du réseau taw yii moo tax ma ne nan teel a redimensionner suñ réseau yi ba muy mën a dékku ndoxu taw yi am ëlëk wa comme niñ koy waxee ha ah, bay wéy na mbuus moom lii jàll jàll na fi mu ne nii ñu ngi. fexe ba bu mu amati waaw na si pexe te it nga ñu fexe ba def ko jëm ci wàllu euh, mbënd mi ba léegi dañ ci wax ndaxte souvent bu euh, taw bi amee. cert ndox mi dina bari ha ah, mais yow da ngay yow da ngay romb ci bërëb bu am ndox moo leen lii ndoxu taw kese. Hmm? man yenn say mhm. day taw ba pare nga romb ci beurep mhm. nga gis ndox ma taxaw fa mu wóor la ni li du ndoxu taw rek rek rek mhm. mu am leneen benen ndox bo xamanteni mi ngi ci donc boba aussi da fay melni fi waxuma nguur gi defar na wala defarul de mais day melni donc ñi dañu gas ñi di sul waaw xam nga loolu nak euh, patriotisme bi la il faut que civisme am on manque de civisme civisme peut-être yow jangoko ci école waye ñun sun temps dañ ko daan jang instruction civique si institution civique dafa am lu mu daan tekki tey tax nga xam ne alalu buur alalu ñëpp la léegi nag xale yi liñ jàng mooy alalu buur nag yàq la kenn moomu ko su ma neexee yàq ndax naka nga mën a concevoir nit ku jël matlaam bu yàqu sànni ko si kaniwu jël xaram mu dee sànni ko si kaniwo jël mbalitam sànni léegi dépotoir d'ordures yi mooy kaniwo yi ci kan yooyu la ñuy sotti ordures yi donc kooku beneen affaire la moo tax si côté responsabilité gouvernementale ak effort yi gouvernement bi def ah on doit faire appel aux populations pour beaucoup plus de civisme beaucoup plus de patriotisme il faut que ñu combiner ñaar yooyu pour mu bañ a am problème ni ñu mel fii.

xam nga loolu doo ko indee Sénégal coow <laughs> li bëgg pare doo leen di def doo leen di takkaloo masque sax ñu ñuy wax ñuy kaas. de tere génn à partir de cinq heures du matin rek indi woon na fi coow. couvre feu bi gis nga ni mu demoon. il faut que force reste à la ah. loi. mais fii y a de l'hypocrisie da ngay gis ni ñuy kaas lii nga di ko ragal ñoo warul leen waa nañ leen bàyyi ñu liggéey mais kuy liggéey nga liggéey ci place yi nii liggéey dañuy nekk si mbedd yi lal di liggéey doo waxee ñu la may liggéey yu ma yóbbu kër ga ok mais liggéeye ko si place yi ñu ko war a liggéey si tout le monde du fekkee ku mu neex nga euh, teg taabal. anarchie kon buntu palais dinañ fa teg taabal ak feneen ak feneen. ba tey rek mu di seen émission hashtag euh, news ñu ci dal rek Moustapha Fall juriste de formation la nekk ba tey njiitu parti action patriotique de libération nekk ba tey PCA bu SNHLM bu ñuy wax ci mbënd mi ba léegi dañ ci des ñu gis ni Sénégalais yi daanaka euh, ci tabax la ñuy dugg ah ci ni ñuy tabaxee lu leen neex la ñuy tabaxee boo leen waxee plan wala ni da ngay seet benn géomètre mu defal dañ lay wax loolu yëfi nasaraan la yooyu est-ce que loolu <laughs> gënul tax saa yu tepp-tepp sax amee ñoom ay problème waaw loolu yëpp euh, il faut que le gouvernement soit sévère en faisant quoi En réprimant, c'est ce qui viole le code de la construction, le code de l'urbanisme. Justement, code de l'urbanisme, ça hmm? m'a dit que de yi ñu suis ma justement code de l'urbanisme bobé. ma ni Macky sa il faut qu'on respecte les codes et tous les codes ni ni régler codes, de nous respecter de la route Nous le voilà a les codes de l'hygiène da ngay gis ku fa force que euh, euh, c'est si biti si buntu këram force c'est un délit ça soit warta génn si ce cœur. te dég c'est courant buntu cœur go dem ñu nga fa ñu nga fa tek. da ngay gis kuy con kuy construire si si si si si kañoo nga tabax fa mais est-ce que du aussi ñooñu dañu ñak xam wala gisunu aussi ñu leen gindi nam sax yaa ma neex bi bari na non non ña ah, du ñàkk xam ndekañoo ku si tabax xam nga ku am ba dem ku liggéey ba am xaalis di tabax xam nga kañ wa kenn li li tax ma wax mooy damay jël kaawu euh, HLM. Mhm. mooy fi nga xamante dañ tabaxoon ci. waaw ah. waaw sen seen intérêt lañ jiital. parce que loolu yàgg na fa. mais seen toog ba nëgë ni ñuy door a wax ni fii tabaxoon nañ fii. seen intérêt lañ jiital rek seetun lu normal ak lu no voilà sa pays boo xam ne sa intérêt rek sa yoon ci li alors du la du la nguur gi nag du la nguur gi rek lewut dak, yow da ngay def loo neex nit ñi ku leen bàyyi ñu def lu raw loolu ngay wax. kulen leen ñu tabax fenen fu sax ci caniveau yi donc y a un problème de civisme il y a un problème d'autorité l'État doit être euh, autoritaire et juste le désordre c'est l'ordre mooy le pouvoir c'est ça le désordre l'ordre mooy le pouvoir mmh. waaw ba tey ñu xam ni euh, yaa ngi nekk ci bopp euh, SNHLM comme PCA boobu ak léegi ay at la lan ngay tontu ci ñi naan poste PCA yi fi mu ne nii Sénégal day mel ni rek ku doon jàppale ku doon jàppale président ba si yàgg ñu jox la maanaam rek genre récompense lan ngay tontu ñooñu nga xamante ni xëy na dañu xamul nekk ci biir. mais non même su nekkee récompense liggéey nga fa. est-ce que yaa ngi def liggéey ba mu liggéeyuloo. non du poste poste PCA poste yëpp la. un régime day jox poste d'abord ñi mu àndaloon di xeex. ensuite ñi com compétent. Mhm. régime yëpp noonu la. fii ki ma fi remplacé PDS la woon def na fi 12 ans. <laughs> alors problème bi du loolu problème bi mooy kun def fenn nga liggéey. man du ma PCA bu dul liggéey su doo laajee asilam xam na doo déggee ñu ne euh, liggéey PCA barewut <laughs> da nga bëggut a liggéey doo demoon suñ statut yi fii responsabilité yi ñu jox PCA responsabilité yi ñu jox conseil d'administration PCA nga xam ne moo war a diriger euh, DG bi DG bi ci ordre PCA bi la nekk lu ñu lu ñu bare xamut hmm. c' est le conseil d' administration moo jël si pouvoir am jox DG bi defar programme jox ko ne ko exécuter ñu ko mais il faut surveiller tout ça yow sa bopp da nga am sa propre liggéey man de li ma yor fii doy na ma sëkk <laughs> te dafa metti dafa metti dëgg dëgg parce que je ne doo laajoon waa euh, waa HLM dinañ la wax am na fu mu demoon di évaluer PCA yi j'étais meilleur PCA man je travaille. parce que dama xam mhm. je ne suis pas étranger fii je ne suis pas euh, en terre étrangère je connais ce domaine-là je suis du Serail. tu hein, parles toujours de Jiris, ok mais j'ai j'ai d'autres euh, d'autres spécialités. Mhm. Ah, bi avant ñu may nommé fii j'étais PC euh, j'étais DG d'une d'une société immobilière. ce qui veut dire que. Mali. <laughs> je suis je suis à l'aise ici. waaw euh, xam nga sénégalais rek temps yi euh, comme ni ñuy li Macky Sall di faral di tabee ñoo xamante ne dañ daan dañ ko daan xarab toog ba si yàgg mu dugal leen ñu tëj seen gémmiñ. xam nga yooyu yooyu yooyu nag. d'une manière générale voilà waaw moom beneen affaire mm, mm, mm, <laughs> waaw man mom xarabu ma ko man dama ànd ak moom ñuy xeex ba gagné. effectivement <laughs> c'est c'est yaa ngi wax ni PCA liggéeyam liggéey bu metti la ndaxte yow daanaka yaa def plan jox leen ñu xel bi yëpp daanaka yow la rek leen jox rek ñu daal di continuer C'est loolu du liggéey bu yomb sa diggante ak directeur général bu boîte bi ak employé yi directeur général bu SNH. bu SNH non non on est en bon terme. je je je l'encadre, man maa accueillir euh, euh, je je l'encadre hmm. je l'aide à remplir sa mission. non il n'y a aucun problème ni avec lui ni avec le personnel le personnel je euh, ba personnel bi di ma wax yow syndicaliste. <laughs> parce que je je, je me positionne même à la place du des syndicalistes am na crise bu fi amoon. may xeexal personel bi syndicat yi di ma xeex te man personnel bi laa doon xeexal ñu doonoon sakk ñu naroon sacrifier kër gi loo xam ne sax su ma nangoon su ma intérêt nga sax ma rejeté su ma intérêt ba pare ne kenn du ko fi def ñu monter syndicat bi ñu di ma xeex man xam nga loolu paradoxe la

modéré légui ñu doon société nationale ñu né SNHLM loyer modéré loyer et vente modéré. temps yoyu mën na noo joxe kër si lu tuuti mën na joxe terrain si pourquoi parce que état mo ñu daan jox terre souf état mo ñu daan jox financement compagnie euh, française euh, daan ñu daan ñu daan ñu daan ñu financer, euh, VRD yi li nga xam ne moo gën a metti si liggéey doo defaree cité. yoon yi réseau yi tali bi nga xam ne moo ay milliards c'est des investissements lourds état moo ñu ko daan supporter ba nga xam ne euh, tabax bi du ñu revenir dara puisque suñ mo suñ suñ mission mooy joxe nit ñi dimbale nit ñi modéré des des des coûts modérés ñu jox ko nit ñi de manière modérée mooy HLM yi ngay gis yëpp à l'époque du woon dara. ah duñ la waxee liñ ko daan liñ ko jaayee nit ñi ak li liñ daan fay par weer da ngay ne c'est pas possible. Mm-hmm. mais nag après nag état dafa désengagé wu. compagnie euh, coopération française désengagé wu état mayeetuñu suuf joxatuñu financement lépp ñoo ko utal suuf. ngeen dem ak seen bopp daal. góor lan sax man xam naa ne góor lan ne ba léegi euh, nous sommes les moins dix ans si si domaine bi suñ kër yee gën a yomb ba léegi malgré tout. waaw ba léegi rek mu di seen seen émission hashtag news ñu ciy dalal rek euh, monsieur Moustapha Fall ci euh, di rek euh, PCA bu SN HLM Babacar ñu dem pause ñëwaat. jërëngëjëf ci déglu bi Vibe radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett di weer fukki fan ak ñett sàttumbar 2020 seen émission hashtag news ñuy wéyal waxtaanu ba léegi ak it rek Moustapha Fall Thié juriste de formation nekk njiitu parti action patriotique de libération nekk ba tey PCA bu SNHLM SNHLM SN googee la ñuy des ñu gis ni am na ñu njort ni fi mu ne nii le li tax sax seen mbir comme ni nga ko waxee léegi da ngeen jógee ci OHLM dem ci SNHLM mais nee ñu daal fi mu ne dafa mel ni li concurrence privée bi ñëw taxaw moo tax seen laaf xaw a tooy tuuti mel na ni ñoo leen gën a yomb yombale wala ñoo leen gën a baaxle wala ñoomin seen mooy promoteur yi nga xam dañuy ñëw di defar di leble wala di jaay. non j'ai rien contre les promoteurs mais xamante ne <laughs> ñun ñoo gën a yombale ma wax la ko tey ñoo gën a yombale <laughs> xam nga ñun defagun fi ay kër yu daanoo koy kenn daan moom. Ah, dafa am ñu defar kër yu daan. non non dama laa waxee noonu rek <laughs> non non concurrent yi. Mhm. Euh, euh, ce secteur privé bi. Mhm. ñooñu sunu sunu. suñuy collègue lan suñuy suñuy mbokk lan euh, ñoom ñoom benn lan nde mën ngaa jóge fii sax dem doon comme ñoom donc duñ leen xeeb duñ leen siis nag ku ne jël li nga war a jël liggéey ko te liggéey ko liggéey bu baax donc concurrence sonaluñu parce que ba léegi ba léegi nit ñi les gens les Sénégal nous font confiance fi mu nek ñaata nit ñoo def demande verser fi seen xaalis bëgg kër bala bëgg parcel te ba tey mënuñu ko am. waaw ah, ba tey ñu ngi continuer. dëgg naa naa dafa saturé moom loolu lañ leen wax. ba tey nit ñaa ngi def confiance dossier yaa nga gis dama koy dama koy attribuer dans quelques jours ba tey nit ñaa ngi la demande est supérieure à l'offre kon xam nga concurrence sonawul ñun nos produits ne sont pas des rossignol produits rossignol mooy yu dul jar ñun <laughs> suñ produit vingt quatre-vingt la donc amuñu boobu problème non ñun kay ñoo mën a am. pour satisfaire ñëpp suuf bala mën a am xaalis. mais ba tey ji fii bi ma fi ñëw fekk naa fi ay sénégalais yu fi bàyyi seen seen apport pendant quinze ans hmm. def confiance HLM kaasuñu takkuñ brassard rouge défilé wuñ marsuñ toog rek di muñ parce que 15 ans ils nous font confiance 15 ans pendant 15 ans logement ci problème logement ba jox ministre Abdou Karim Fofana euh, waxuma waru koon jox minute bi jàppoo ni dafa waroon ñëw ci SNHLM boole leen ci liggéey boobu wala yéen boole ah non du noonu du <laughs> ñun on est euh, euh, mais xam nga ci wàllum tabax wàllu suuf wàllu yoo xam nga yéen kat da ngeen ci am benn xereñteef bi man foofu laay waxee. non ministère de l'urbanisme ñoo ñu ko ëppale. waaw d'accord mais mais mais xam nga bu ñu waxee. Ah, logement rek maa ngi ñëw sax. dinaa la waxal li nga bëgg a xam. Mhm. Euh, de l'urbanisme mooy suñu tutelle. ñun on une société d'État. Nous on est 100 état SNHLM SICAP c'est 97 pour état pour le reste c'est des privés nous sommes 100 état. Mhm. donc te itam associé 100 aussi. 100000 logements dañ distribuer promoteurs yi ku am sa quota SNHLM am na quota dina tabax dina tabax dina tabax dina tabax un peu partout le quota Non la. da ngay da ngay jox privé yi aussi parce que looloo seen métier donc l'État a bien fin ni mu ko hmm. defee noonu la cent mille logements yi waru koo jël jox ko SN HLM rek waru koo jël jox ko SICAP rek te yeneen promoteur sénégalais ngi fi moo tax ku ne jox na la sa quota nga war ñu exécuter. ok duñ fi ñëw te duñ wax aussi wàllu foncier bi fii ci Sénégal wàllu suuf coow li bari na trop trop trop euh, bari na fii jamono yii daanaka ku ci nekk euh, da ngay gis ay fàkk dëkk lay doon dem ba si yàgg kii ñëw ni sama suufu maam la donc bu ñu continué woon est-ce que duñu dem ba même ñun faale ni sax ñu ñëw taxaw rek ni ñun fii it suñu suuf maam. non faale du def loolu <laughs> bien que ñoom moom fépp. <laughs> ñoo moom suuf si yëpp j'espère que njengeen yeeg ñangeen yi non am suuf ñoom <laughs> gis nga moomar suuf siap ñoo ko moom ah ñun kay dañoo noppi rek tigi ba na mhm. euh, oui effectivement temps yi mbiru suuf pare na xam nga Sénégal aussi nag pays de civisme la nit dan dañuy pondok. Bo defee dara rek ah. du baax rek du baaxul yëpp ñu toppandoo ban gisee ne amna ñun jël seen suuf ñu xeex a xeex a xeex nit ñi jàpp leen ban delloowaat leen seen suuf ku joxe woon suuf sax parce que am na ñu bare ñu ngi kaas yaax ne li tax ñu jox jox nañ ko nangamu hectare et pourtant jox nañ ko ko ay ati at ban ko koy jox kenn forcé wu leen ne joxe leen ñu des fois dañ leen jox xaalis des fois ñu xool rek xam ni kii nitu dëkk mais fi mu nekk ñen attribué woon légalement ñoo xam ne sa gox ba leen dëkk ñu sax ñu ngi koy nangu parce que yenn yi itam soxor da see bokk xam nga iñaan moom fépp la ne yenn yi soxor da see bokk parce que man mënumaa concevoir ngeen dajale woon yéen ñëpp jox nit ki suuf si forcé wu leen soit daf da ngeen ko ko jaay soit da ngeen ko ko da ngeen ko ko attribuer ni koy defee parce que suuf kenn waru koo jaay d'ailleurs ni koy defee si mairie yi ak si arrondissement yeeg yooyu toog ba léegi ngeen dégg ne nangu nan fii suura ngeen nangu ko du noonu loolu baaxut waaye loolu yëpp ah ils sont ils sont légitimes seen seen seen seen seen xeex la seen combat la mais nii ñuy def nii baaxut de du yàggee dinañ yàq lu bare parce que itam jël suuf te mënoo si dara te ki si mën dara mënoon ko utiliser kooku du développement de kooku du développement man nag je n'encourage rien du tout ku si mën a xeex ba jël suuf sa responsabilité la yaa xam waaye daa xam naa ne loo mën te utiliser garde ko amul njëriñ jox ko ku ko mën a utiliser. Mhm. c'est loolu mooy dëgg gi. xëy na kay li ci xaw a jaaxal nit ñi sax moo di ni bu ñu jëlee masalan uh, benn pàcc ñëw jox ko ëpp uh, koo xamante ni dafa ñëw pour taxawal këru liggéeykaay wala nangam sangam saa nit ñi li ci seen problème mooy ñu ñëw jox la ko à vie du ma ni suufu jàmbur. dañ ko jël ñom utiliser wuñ ko mais ñu ñew jël ben x jox ko à vie lool moy problème nit ñi fi mu le ndax xalaato ni koku mën nañ ko jox pour masalan 50 ans wala pour 60 ans wala parce que waaw ay ay bay di def bay ay waaw lool mo gëna woor waaw parce que bu ñew ba jëmi jamono aussi c'est soo ko soxlaa mën seen i doom wala seen i domi doomi doomaat mën nañ tok rek fi pour benen problème voilà voilà tu as parfaitement risque bobo ngi ci nak ah, c'est ça parce que joxe pour pour pour de bon pour de bon wóorul parce que aduna day dox mën na doo dem ba gox ba soxla ko beneen dégât bi itam mooy jox la ko nga ne dama fiy liggéey ñu jox la ko nga dagg ko ay parcelle di jaay boobu itam baaxut waaye kun ko jox defal la bàyyi de temps d'année ba nga xam ne doo du yeggee fa foofu sax su dara xewut mën na laa defaat beneen bàyyi yooyu gën a wóor di la ko jox. pour toujours pour toujours vraiment loolu moom dëgg la man loolu mm. d'accord naa si. ok euh, temps yi aussi ci suuf ba léegi la ñuy des mais mais bii dafa mel ni moo gën a leer ci gëtt nit ñi. gën a dal xel ci ci ci ci ci gis-gisu doomi aadama yi mu di projet Econ City bi ca ca Mbodiène coow li bari na. naa dégg nga ko. waa yow en tant que kàngam ci wàllu habitat ak yooyu noo gisee. projet bi lu si wax ñu ne. ah non non xam nga nit ñi bi ñu gisee projet bi. waaw. da ndengaleer daf fi am leneen ak leneen rek am fi mais bii wuute na mm-hmm. parce que dafa dem ba foofu moom Akon toog ak askat bi waxtaan nañ ci naka la ñuy def ba dàmp leen et tout et mm-hmm. mais bu dee aussi dañ ko ko jox à vie li ñu doon wax léegi est-ce que du ñëw encore waaw c'est-à-dire euh, xam nga du fekkee ne dafay jënd du fekkee dafa jënd mën naa jënd à vie xam nga li bon attribution à vie moo bon mais loo jëndee sa xaalis yaa ko moom foofu la différence bi nekkee nag bi may d'accord ak yowul fii léegi mooy du ci attribution yi rek ko euh, mairie bi taxaw rek ñu euh, daal di jox joxe avis si mais doo amee sa xaalis nag ba jënd yaa ko moom yaa ko moom pour toujours doo dee sam njaboot jël ko donc su fekkee ne loolu la ak euh, kon su fekkee daf koo jënd kooku benn benn problème amu si kër ya muy defar ay nit ay sénégalais say dëkki te bakke na ne yooyu dafa naa moom mënuma ci am moom am na xam ne mën nañ saa dëkk <laughs> am na Sénégal yi suma classe gee si mënta dëkk waaye am na ñeneen ñu si mën a dëkk <laughs> ba tey rek bu jegee ci parti suuf si xam naa ni dugg nañ ci bu baax a baax dañuy génn ñëw ci wàllu politique ah ndax ki ñuy dalal bu ñu fàtt nit moom mooy njiitu parti action patriotique de libération euh, waaye li ngeen dégg bareetul de jamono yi oh ça ça dépend rek ça dépend ñun xam nga am na temps fii ñun rek ay wax ah oui doo ko lool dog bu mu gàcc yaa ngi ko lool. ah dañ ko ciy teg. ah oui action patriotique de libération dog bu mu gàcc kooku kay ñëpp xamoon nañ ko Sénégal ba nit ñi ragalee wax ñun rek daan wax moi j'ai donné du courage à beaucoup de Sénégalais songu yi ma daan songu Abdou Diouf songu yi ma daan songu Ablaye Wade man amul lu ma waxut moo tax du ma gisee xale yi di wax tey il ne me gêne pas. xale politique yi wala activiste parce que léegi Ahmed activiste xale yaa ngi si activisme ñu ngi fépp hmm. ah hmm. du ma nee xale sa parce que maa leen mag du gêné wun ma te mosuma leen tudd itam te duma leen tudd parce que def naa lu raw liñ def te ba ma koy def bëgguma woon ku ma tudd kon kon kon kon yow sa cosaan sa cosaan ci wàllu politique ndax auditeur oh, war nañ ko mën a xam ndax dama ñëw fekk la nga takku aussi benn pinsu cega vera ak photom sa cosaanu politique pour gone yi ñun ñi nga xamante eh, ne am na luñ ci luñ ci ump mën ngeen ci fàttali lëf rek waaw cosaan politique damay bàyyi ba nga ñëwaat ñu def ci émission <laughs> parce ah, que c'est tellement long mais mais mais as ndax pins bi ak photo bi moo tax ma maa ngi hmm. man maa ngi commencé politique maa ngi politique organisée maa ngi ko commencé après mai 68 mai nga man mai 68 nekkaguma l'université. université mai 68 régional parce que mai 68 national dafa amoon mooy waa université ak mai 68 régional mooy ñun ñi nekkoon ci lycée région yi. alors j'ai tellement fait en mai 68 wër nañ ma fu ne pour jàpp ma mënuma laa jàpp ñu jàpp suma qui était professeur d'université. te mujj décédé biñ ko jappé mu doon mineur mu nakarima ma il a comparu ci tribunal mu nakarima metti ma ma ngi ni di camoufler ban japp suma rek ban sa génné ci la ñëk créer ben mouvement bu tuddu Spartacus mooma anarchiste. bu hmm. fi def yu kenn xamul. ñun du doy waar def nañ ko fi. alors si mooma boobu Spartacus si la nekkee ba PAI PAI clandestin à l'époque détecté ma bi ma détecté ñu bëgg ma noonu lañ daan ut utee militant. PAI bu Majmout Diop ndam si wala lu boobu. booy Majmout a ngi si woon mais bu Seydou Cissokho. ok bu njëkk ba. bi may recherché bi may bëgg ñoom boobu Seydou Cissokho moo yore PAI. parce que boobu Majmout euh, euh, problème am na si parti bi ba gars yi exclure ko si parti bi ñoom Seydou yore parti bi Seydou moom la dans su ko remplacer donc euh, biñ ma détecté ñi di ma cherché nag di ma cherché di ma cherché man itam wokk bu dajee gestu man itam boobu ñoom rek laa bëggoon a gis. Ah, ok pour xeex man alors am benn intermédiaire son benn grand bu leen xam-xam ma daal di ñu boole daal ah man de daf maa nax sax dafa ne ma ah man de bokkuma sa waaye am naa koo xam ne daa kooku daal foog naa xam na ñooñu dafa naa ma boole la ak ñoom mu boole ma ak kooku waaye bi ma demee ban intégré ma ma gis ka doon wax bokkuma si ndekk mu nga sa digg ba waaye c'est un parti compliqué ñooñu duñ la former beneen affaire la donc PAI laa njëkk a nekk ñoom ñu ngi ma recruter 70 yagna yagna ñu dem ba mu avons ñu le congrès de El Mansour cinéma El Mansour les 8 et 9 août 1981 nous pays le mané pays PIT pays ci la nek ba 80 99 euh, ñu am problème ak direction PIT. ci dal di quitter son propre parti avant ñuy créer appel sax MG MMGS lañ créé mouvement guévariste ma nekk fa ay avocat guévariste ñoom maître Sarr ak kooku yëpp ñu créé le mouvement guévariste après mouvement guévariste sénégalais si lañ créé APL dog bu mu gàcce en 2000 hmm. boobu laa yoree ba léegi foofu mooy brièvement ok waaw na am na solo na si gauche bi laa jógee hmm. moi je un homme de gauche Ok. J'ai été formé dans les pays de l'Est. Parti traditionnel. Mmh. Gauche. Ouais. La gauche. Ok. C'est pas la droite comme Senghor yooyu euh, moo tax ñu leen daan xeex. ok Wa fi ne nii moom leer na ci tout temps ki nga xamante ni ñu ngi déglu ci walu wàllu di dinañ ko ci jàpp euh, yaa ngi ànd ak Macky Sall bu légui wala. eh bien bien ah, bien sûr. Euh, okay. on a une coalition Macky Sall. Macky Deme bim mu fekk ci ma Kaolack pour ñu signer partenariat dañ né lutter ensemble gagner ensemble gérer ensemble on a lutté ensemble, on a gagné ensemble, on est en train de gérer ensemble. ok voilà d'accord. peut-être que nous ñu politique bi ñu gis ni Sénégal dafa bari parti politique bari na mhm. pour yow ban pexe la ñu pour di pas élimination au sens mais pour éliminer xe qui rek ku mer génn taxawal sa parti mouvement bu jóg taxaw nekk parti dañuy dem a dem ba après élection bu ñëwee dañuy indil ay problème lu si bon parti yu bare parti yu bëri hmm. ma jox la masalan local yi bi mu ñëwee ñu war a euh, voté hmm. ñu indil ñu ay ñaata présidentielle ah, waaw présidentielle ñu indil ñu ay car bi sax du participer si élection waaw waaw d' mais déjà rek vingt et car bi sax car sax 300 parties yooyu car sax. donc vous êtes pour. non non plus de non non attends man je suis pour la liberté. d'accord mais mais tout ma tuuti allez-y allez-y. constitution be wax. ne ku def li def li am nga droit am parti. Hmm. suñu bëggee lo arrêté kay sa constitution ba dañ koy jëlee. constitution be ko wax. mais amna fu mu éliminer parti. parce que doon démé ba jox la sa récépissé sa gannaaw récépissé ñu ngi la wax né at mu jot sa bilan na nga def li nga def la am na ne ko ils ne sont pas à jour te boobu ne ku ko deful rek automatiquement dissout sa parti suñ ko parti jeex nan bu yàgg te aussi ñaata parti la ñuy compter ba léegi te seey nan si yeneen parti bu yàgg existé tout ñaata parti y a plus de 100 parties qui boole si décompte bi te tout donc plus plus il y a des fleurs plus le jardin est beau nan bàyyi ñep il fut un temps parti régionaliste de Tana bloc démocratique du sin Saloum bloc socialiste de linger parti Casamance boobu xanaa kay boobu la gëna bare dem nan ba dis ba jeex dem nan ba mujj gi ñu transformer wu ñi dem bokk fenen ñi tas nan bàyyi rek dina dina dina demati ba jeexati mën nañu woti kon daal ah? mus kon daal Moussa Fall tour de parti ça ne me gêne pas gêne pas ma wax la leen mhm. ña daan wax sunu temps ñun ña daan wax wuy yaa tour de parti yaa tour mais ñoom ut parti kon daal politique mi ngi noonu quoi waaye <laughs> politique bi la moo tax nit ñi <laughs> seen wax bul ci jàpp waxal sa wax aywa voilà ñu wax wax ji local yi buñ koy jàngat report day am du am buñ koy prononcé wu naa si soleil yu xaw ma kañ nee naa que bi politique bi def na liggéey bu am solo am na beaucoup de points d'accord mais am na beaucoup de points de désaccord ma ne daal ñaari solution bi nii lay doon soit ñu dem si local yi saa ñu jeexal réforme yi ñu bëggoon a def soit ñu reporter dilemme bi loolu la dem si local yi. te duñ jeexal réforme yi suñ demee ba pare continuer réforme yi ou bien reporter waat donc mooy réalité bi. aywa di kàddu yi rek euh, sëñ Moustapha Fall Dieng nekk euh, rek njiitu action patriotique de libération dog. dog bu mu gàccee. aywa ñu jëm ci beneen pàcc Babacar Covid Sénégal mbas mi dugg na fi dugg na ci at bi ah. mhm. peut-être information biñ ci mujjee génne boo xamante ni Sénégal yëpp dañ koy ndamoo mu di ci benn xayma boo xamante ni def nañ ko nekk nañ pay ci ni ñuy saytoo mbas mi ci Afrique nekk ñaar ci ñuy saytoo mbas mi ci fanweer ak juróom-benni réew te pourtant suñu loxo jotul suñu ginnaaw noo jàngate loolu. waaw kooku expérience la on a de l' expérience au Sénégal on a on a des cerveaux au Sénégal et puis on a des politiciens qui qui sont des visionnaires Macky Sall extraordinaire il a un ministre de la Santé, Diouf qui est formidable. Management, management pour Mac, pour diriger. C'est un grand dirigeant, euh, Il y a la équipe des gens compétents. Personnel santé pour patriotique. Il patriote la def sacrifice ban am résultat bi ñu am moo euh, su ay nit ñoo pour des raisons d'opposition tax na ñuy la gestion de de de la pandémie au Sénégal danoo xamut mais ñi xam les sachants ñi xam xam nañ Sénégal a tiré son épingle du jeu seen gàcce ngaalaama te sax su taxu woon sabotage yi ñuy saboté. sabotage. waaw mooy bañ na doo du ma takk masque. askan wi quoi ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxalee. bañ na duma ma masque. ku fa ñëw nga violé ko. di jaay opposant ne damay génn di monter ay xale ñuy def ay barrage yu kenn xamul deux types de sabotage yooyu am lu tax woon loolu sax génn nañ si lu tax woon loolu génn nañ si bien que duñ si mën a génn totalement tant que frontière yaa ngi ubbeeku duñ si mën a génn totalement mais dina ndi si des du bare parce que quand du Macky Sall wax il faut vivre avec le virus mais wax na dëgg sida on avec le sida on vit avec le cancer, on vit avec la tuberculose, on vit même avec la lèpre. Moi, d'abord, il faut vivre avec euh, avec euh, le virus <laughs> Il ne réfléchit pas on vit avec des maladies beaucoup plus dangereuses que le euh, Covid 19 Nous, on vit vivre moi. Oui, tout. à ok voilà ce qui veut dire que là je suis très content de ce qu'on a fait jusqu'à présent soleil euh, je suis content maintenant il faut qu'on change de paradigme L'équipe euh, sanitaire est def na c'est au niveau communautaire au niveau communautaire les politiciens sont. Les a Les politiciens sont découragés. ay eh, apprenti sorcier yi lay wax politiciens yi kenn gëmatu leen nan dem élection nga mhm. set mës ngaa gis ab ah, politique bu gagné politicien politicien yi nit ñi politiciens yi lañ gëm hmm, waaye sonko am na lu mu wane de ousmane sonko après sonko politicien la ah bi bi muy démarré non non politicien la kon daal pour dugg ci langue rek tu es un politicien non da way gis nga doo si xasee dugg rek tu es politicien ana ña doon wax duma ma poli oh je n'aime pas la politique ana ñu léegi ñu ngi si biir nan nan nan nan def ndànk euh, euh, gis nga approche communautaire bi na ko politiciens yi jël ñoom la population yi déglu ñoom lu wax population yi ñu def ko nan woote si comité yi comité parti yi si quartier yi war na def leen dinañ def pourquoi gis nga politique ñaari dimension la il y a la dimension politique, mais il y a la dimension sociale. Hmm, askan, mmh. euh, la politique, avant d'être l'affaire du cerveau, c'est d'abord affaire du cœur. Un politicien day bëgg nit am yërmande si nit mën a dimbale nit demal si kër politicien yi fajar la fa nit ñi xëy bokk ak ñoom ndékki la añ ñu ñëw añ toog si salon yi jàq fauteuil du wax politicien bi du wax dara boo demee si kër petit bourgeois yi nga xam ne kenn xamu leen seen yaay rek leen xam ah bëgguñ kenn ñëw seen kër ñoo fiy taxaw di wax wooy gëmatuñ politiciens yi politiciens yi la population bi gëm parce que politiciens yi ñoo nekk si wetu population ñooy dimbale population aywa ba léegi rek mu di seen émission hashtag news moom xam naa gan gu spécial Babacar moom la ñu am ñu jëm ci euh, euh, xew-xew diine bu ci mel ni màggal Touba euh, ndigal jib na waaye ñu jàpp ni rassemblement day am noo jàngate loolu. ndax après sax màggalu Tuuba mais ndigal di na jib na ndigal dañ koy exécuter rassemblement. c'est-à-dire dégg nga li ay muy wax nee na moomu moom màggal gi. màggal gi ki ko moom nee na day màggal. ah où est le problème. ku ragal nga bañ a dem. c'est tout. waaye kenn mënu leen a tere màggal. ñu dem nag ci pàcc bu mujj bi Babacar ah. mu di ni ñu la ko waxee ci ci boppu émission bi euh, li xew Afrique. Alpha Condé dañoo samp ndënd Mali jëlee nañ leen fo fi mu transition bi euh, dëggal laata ñu egg ci transition bi sax nguur gi taxaw nañ fa euh, nguur militaire taxaw na fa CDAO e ni leen euh, au plus tard le 15 na ngeen ñu indil président bu civil. Côte d'Ivoire aussi la fa xew gis nañ ko Alassane Ouattara ki kiiwaat ñëw dem sax bay dem ci Macron pour mo xoo mais Macron lam ko wax modini di ci lolu damay citer bu dee dañu sukkandiku ci Jeune Afrique xibaar yi ñu jox loolu lépp noo ko mën a jàngatee ci Afrique. waaw c'est-à-dire li ñuy wax le syndrome du troisième mandat. moom la rek. waaye nag euh, c'est des choses assez compliquées. par exemple Mali Mali nan def ndànk na CEDEAO def ndànk si mbiru Mali am na benn intro bu ma joxe say wax ne le Mali c'est pas la Gambie les militaires maliens ne sont pas les militaires gambiens donc nan def ndànk ci Mali parce que ay xalé yu yor fétal lan te réew maa réew maa ngi ànd ak ñom nan naxanté ak ñom baña engagé épreuve de force ak ñom oui parce que boy buñu ñu bu dee bu dee dañu topp li CEDEAO di def boobu ba légui genre li nga mujjé wax la épreuve de force la sanction économique di dineeguñ ko ba paré dañ leen imposer ni leen na nek ay civil muy président. wala d'ici le 15 ouais d'ici le 15 en plus. tu euh, vois donc. Mali yi am amnan amnan amnan amnan amnan refleks amnan ki nan point d'honneur ya troxal yi ku kubu ko bëgg a troxal ju bañ dañuy bañ nan def ndànk si malien militaire yi man nak sama xam li si xam sama wax sama yëfu bop gis nga ma xale yooyu kulen euh, militaire yooyu ku leen bàyyee euh, Mali pendant trois ans Mali dina développer et dina régler problème mu djihadistes déjà ils sont avec les Russes ils ont di informations. di jox information gis nga attention dans cet intérêt Mali hmm. le peuple malien bañu coup d'état Il ont a coup d'état on condamne qu'ils ah loin de Mali tu es loin des du théâtre des opérations. les maliens bañuñu maliens bañu ñu coup d'état bi té ñu ngi and ak seeni militaire parce que seeni dom la motax ku ci intervenir tam nga ci def ndank lol da moy conseil bu may jox CDAO nan def ndank ci mbiru Mali Mali du Gambie donc pour le Mali da man nak suma bëgg bëgg man duma sañon dañ parce que transition yu gatt yi lu muy indi problème bi day day day demeurer toujours coup d'état yi am yëpp transition yi gàtt. du régler dara. du régler tous mais suñu leen bàyyi woon puisque peuple bi d'accord na si M5 d'accord na ñu bàyyi leen pendant trois ans dina non seulement dina yóbbu Mali sur les rails du développement et de l'émergence mais dina liquider tout ce qui est djihadisme sur le territoire malien loolu laay wax si Mali. Euh, Guinée. Guinée constitution Guinée li mu wax mooy a amul droit def trois trois mandats itam épreuve de force mo fay nek li Ablaye def un de maintenant on va voir avec le peuple guinéen parce que tout dépend des peuples Ce peuple guinéen bi andek euh, si si si troisième mandat. ah da koy def. en tout cas avant mu fay egg deret tuur na foofu baax baax. déjà déjà mais est-ce que deret ju tuuru door nag <laughs> du tax <laughs> ëllëg kenn dootu ko ñemee jógati pour pour pour aaye ko ko. waaw y' a problème aussi Côte d'Ivoire moom Côte d'Ivoire moom yëfu xale laa fa dégg ñuy wax parce que dañ ne euh, dañoo defaraat constitution bi on on on vide les <laughs> di rajo ay candidats. waaw ci liste yi on vide les compteurs ce qui veut dire que foofu itam. on verra euh, comment ça ne se on verra il faut ngay les peuples sont souverains en tout cas. aywa sunu laaj bu waxtu eh, président de la république euh, Sénégal ci mbir bëgg nga ko def wala bëgg nga oh du ma euh, président Sénégal hmm, ñu bare bëgg mu rek. benn rek xam dina met nak waye mom non la koy jappé ben rek duma ma ñaar ben <laughs> ndax une semaine rek la lay may dé <laughs> ah kon damay damay bëgg rek nit ñi nit ñi ñom nit ñi yëpp jóg di liggéey bàyyi corruption. nit ñi liggéey bàyyi corruption moy kaddu Moustapha Fall euh, Moustapha Fall ci sa kàddu mu mujj émission bi jeex na. wa mais di leen di leen féliciter rek euh, di leen encourager aussi man awma problème man du ma ñoo ñuy ngand ngand lu man yooyu du suma problème. waxtu ngeen ma soxlaa su ngeen ma woowee su ma libre. Euh, effectivement parce que yombalal nga ñu ko. vraiment dinaa non non man noonu laa mel ak ñëpp <laughs> doo ñëwoon suba sax ñeneen moroom fekk leen fi donc euh, vraiment euh, je vous félicite di leen encourager di ñaan ngeen seen affaire yi gën a développer. ngeen dem ba yor seen télévision yor hmm. seen lépp maa ngi leen koy ñaanal bu a baax hmm. asalaam aywa mu doon seen émission hashtag news seen xel Maodo Fall doon leen ko dégtal ànd ceeg Babacar Kane ci jàppandal bi doon ci dalal rek euh, monsieur Moustapha Fall di juriste de formation leader bu parti action patriotique de appel nekk ba tey rek euh, PCA bu SNHLM ñëwoon fii ci biroom doon fi euh, waxtaan ak ñoom li leen ko waxee hashtag news yenn saa yi dañu dem seeti yenn ci kilifa yoo xamante ni daanaka seen jot dafay xaw a rek am nu mu fa demee dig daje incha allah ay bés ñu gannaaw vibe radio point application bi ñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci facebook twitter instagram sunu chaîne youtube incha allah 14h daañu leen jox replay bi ci sunu chaîne youtube jàmm ak jàmm